jërëjëf Mbacke. sëñ bi nee na jërëjëf Mbacke. dégg nañu kàddu yi bu baax. dégg nañu kàddu yi bu baax. alhamdulilah. alhamdulilah. amaat na ci bind bu yees peq. amaat na ci bind bu yees peq. noonu ñu ko waxee rek. ci noonu yi mu ko waxee rek. suñu digg ak sëriñ bi. suñu digg ak sëriñ bi. noonu yi dong la demee. suñu kem kattan. kon suñu kem kattan. nañuy jéem. nañuy jéem. nañuy jéem. di ko nekkal. di ko nekkal. suñu kem kattan. wax na lépp. nee na sëñ Abdou Samad wax na lépp. mais néew doon ay néew fi moom. nañu nañ doon ay néew fi rek. daanu dolliku. daanu dolliku. daanu daanu noppalu it. Mm-hmm. daa daanu dund dund gu sell. daanu dund dund gu sell. am xel mu dal retiix. am xel mu dal retiix. di di di di gën a di gën a di gën a di gën a xeeb suñu bopp. di gën a xeeb suñu bopp. ci ci ci ci. li ñuy wute sëriñ bi. ci ni ñuy wute sëriñ bi. nee na noonu yi rek la. gën a góorgóorlu bu baax. gën a góorgóorlu rek bu baax. nekkal ko na ñu nekkal ko rek incha allah. suñ kem kàttan. suñu xel dal na bu baax. nee na suñu bu baax. sëñ Aliou njëkkoon a waxee rek doy na. waxee doy sëkk. sëñ Hamza mii ak sëñ Abdou Samad mii. nee na sëñ Hamza mii ak sëñ Abdou Samad mii. yàlla boole ñu fi tawfiq sëñ bi ñu bokk fi teew. nee na yàlla boole ñu tawfiq sëñ bi ñu bokk fi teew. doy na sëkk. nee na loolu doy na sëkk. yaakaar. mais am na yaakaar. doy na yaakaar doy na yaakaar. doy na xel mu dalit. doy na it soññu. doy na it soññu. soññi suñu bopp bu baax. soññi suñu bopp mu baax. noonu rek la. nee yi rek la. sëñ bi muy seen lépp. def sëñ bi muy suñu lépp. muy suñu dund. loolu rek la. nee na loolu yi rek la. buñ ko defee rek. nee na buñ ko defee rek. am dañuy am dañuy am. texeeg tey ëllëg. nee na rek la ñuy jural. nee na loolu rek la jural. kon foofu loolu lañ ci mën a na foofu yi rek lañ ci mën a yem. waay sori na lool. nee na waaye bi. yóbbu nañ fu soree sori. yóbbuwaat nañ fu sori. nee na fu sori. fu dal sama xel. nee na fu dal xelam. alhamdulilah. kon jërë ngeen jëf. yéen mbokki taalibe yi. yéen mbokki taalibe yi. seen sababas teew fii mi ngi sababoo ci say Hamza mi ak say Abdou Samad mi. nee seen sababas teew fii mi ngi sababoo ci sëñ Hamza mi ak sëñ Abdou Samad mi. nee na sant leen yàlla bu baax. ngeen xam ne. nee na boo yóbboo ngeen xam ne. yoon wii ngeen aw. yoon wii ngeen am. ajjana rek la jëm. ajjana rek la jëm. alhamdulilah. gaa yi yàlla yi dañuy ñoom dañuy wax ne sax àjjana taxu leen a jóg. nee na gaa yi yàlla yi dañuy wax ne àjjana sax taxu leen a jóg. kon nag. kon nag. sëñ Xamsa mii. sëñ Abdou Samad mii. sëñ Abdou Samad mii. ñoom dañuy jàpp ne ñoom. ñoom ñoom ji romb nañu. nee jàpp ni ñoom romb nañu. ajjana taxu leen a jóg. ridwanullahi rek leen tax. ridwanullahi rek moo leen tax a jóg. te fàggul nañ leen ko itam. te it nañ leen ko. yoon wii ñaaw. moom rek koy maye. moom rek koy may loolu rek mooy maye alhamdulilahi rabbil alamin kon nañ sant rek nee mën mënu si wax mënu si wax lépp jërëjëf jë tàllal leen may sëñ bi nag sëñ Abdou Samad nee na dafa am lu muy ñaan taalibe yëpp dafa am baat buñ koy ñaanal daa am luñ bëgg ci yow am luñ bëgg ci yow te mënaluñ ko seen bopp te mënaluñ ko seen bopp te mënuñu koo ñàkk te mënuñu koo ñàkk mooy nga yàgg fi yow mi nga xam ne nag yow mi nga xam ne nag ki nga fi nekkal. ki nga fi nekkal. mësta tooñ boromam. mësta tooñ boromam. mësta tooñ moromam. mësta tooñ moromam. te lu mu bëgg ci boromam am ko. te lu mu bëgg ci boromam am ko. te juboo nga ak moom. te juboo nga ak moom. te gërëm na la. te gërëm na la. benn baat rek lañ lay ñaan. benn baat rek lañ lay naan. nga ñaanal ñu sëriñ bi. nga ñaanal ñu sëriñ bi. sa jëmm ji yàgg fi lool. sa jëmm bi yàgg sa jëmm ji yàgg fi lool. ba li nga ko bëgg a liggéey lépp nga def ko. loolu ñun nga ko defal. sëriñ bi neel neel na fi yàgg rek. ñu dégg ko waxal nu lool rek waxal na loolu Mbacke yàgg fi rek ku neen sëñ Muntaxa na fi yàgg dimbali leen rek wax na Mbacke boo ko waxee ni sëñ Tuubaa defal dimbali leen nga sëñ Tuubaa rek ñaan mu lox ñaan gi ñaan ci lam bi ñu ci xol bi dama day sëkk wallahi Mbacke yàgg fi yàgg fi rek yàgg fi rek Mbacke yàgg fi rek yàgg fi rek amal njëriñ mu jëpp ci ñu jóg ci yéen ji ak ci posté bi jaar ci lam bi loolu dama day sëkk mu ci dolli dara alhamdulillah jërëjëf baax na baax na baax na jërëjëf bisimilah sëñ Thank you.